am Bénin euh, quart de finale moom gën am Maroc parce que Maroc ak Sénégal presque ay adversaires yu xaw a yem doole la te Bénin suñ dé wax deug rek Sénégal mom moko ko ëpp tuuti doole mais ëpp doole équipe taxul nga gagné ko surtout nak si stade bi de nekk si compétition bi ndaxte dañu nekk si ay match couperé ay match à éliminatoire direct sur un match tout est possible mais euh, lu ñu mën a jàpp rek moom mooy euh, Sénégal su joué si vraie valeur war na mën Bénin mais encore une fois un match n'est jamais gagné d'avance pour aborder match Bénin bi d'abord il faut respecter un parce que adversaire la ñëw na ba ème de finale nam sax gagnagul si terrain bi trois matchs ni la am de finale bi série de pénalty la gagné mais il ko jox ko cër parce que adversaire soko joxé cër si ngay def li nga war a mën a def ba pare nga ñëw si fulla ñëw si fa fayda ñëw si ak détermination loolu daal suñ ko defee dem ba jeex aussi parce que match coupe la benn noyyi nu ñu mënee ñëw ne lii match coupe la

Euh, Oudé nu mu la gisee rek la lay ëwalee Kalidou Koulibaly ba mu duggee si équipe nationale ba léegi respect la wan nit ñi disponibilité donc suñ demee ba ci biir mu am ay naka sunu noonu bi si am da ngay jël problème bi ak mesure xam ni ni euh, doomu adama la peut-être mun na jum surtout nag déclaration boobu ba mu koy def du woon euh, en off la ko def parce que ñi ko jël zone mixte yëpp gis nañ ni saagawu leen taxaw ji wax te pourtant taxaw na wax ak nit ñi Kalidou Bali man pour man am na fulaak fayda ba su bëggoon saaga nii dina leen saaga seen kanam donc su demee ba ci di wax ak benn nit ba daal di def déclaration bu mel noonu même su su fekkee d'accord mu déclaration bi njumte la euh, ñun tamit ñoo waroon jël la hauteur te jël nañ la hauteur moom tamit yàlla Euh, def nii mu xool nii que ak xam naa dañ koy yedd ak yooyu mu xam ne nii li mu defoon erreur la mu pardonné wu man je pense que dañ koy pardonné ñu avance parce que ñu nag Lions yi sotti seeg def si la benn la ñu tey suñu nekkee si Coupe d'Afrique bi parce que équipe nationale dafa su suñ toogee day ñibbi ñun bañ nañ ko ba premier tour rek la ñu fayoon suñu hôtel parce que dañ jàppoon ni que premier tour tant que jeexul mënuñu continuer bi ñoom ñooy tax ñuy continuer di fay suñu hôtel ñoom ñoo tax ñu fay ba huitième de finale ñoom ñoo tax ñu fay ba quart de finale ñi ngi ñaan yàlla ñoom ñu tax ñu fay ba demi finale ñoom ñu tax ñu fay ba finale ànd ak ñoom ñibbi yàlla def lu gën si ñun su fekkee ndam la yàlla na ko yàlla def.